الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا بلغ رساله القران وادى امانه البيان ونصح الامه ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu tur boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi sunu xutba mooy asbaabu xizlaanillahi lil abd dafa am ay sabab yoo xam ne am mbir yoo xam ne ku ci dugg rek yàlla dina la toroxal mbir yooyu nag lu jara xam la mooy tandik ko ndax ab jaam bu ko yàlla toroxalee addunaam ak alaxiraam yëpp day yàqu te sabab yooyu bari na bari waaye boo xam ne jaami yàlla yu guddi ak bëccëg ñu ngi koy xëtt di ci dugg am na ci ñoo xam ne ñàkk xam moo tax ñu ko def am na ci ñoo xam ne xam nañ sax waaye dañuy fàtte waaye am na ñoo xam ne dañoo réer waaye am na ci ñoo xam ne danoo nar a alku ëllëg yowmal qiyaamati moo tax yàlla bàyyi leen noonu parce que noonu la ñuy mel ba dee mbokki jullit yi sabab yi tax yàlla di gàcceel jaam bi bi ci njëkk mooy ittibaaul hawa mooy topp bànneexi bakkan xam ngeen ne borom bi tabaraka wa taala wax na ci quraan ne am na ñoo xam ne seen bakkan mooy seen yàlla afaraayta man ittaxaza ilahahu hawa am na ci jaami yàlla ñoo xam ne yàlla bi ñu gëm mooy seen bànneexi bakkan lu seen bakkan bëgg loolu lañ bëgg lu mu laaj moom lañ koy jox fu mu leen joxoñ foofu lañ jëm jaam boo xam ne nag da ngay topp sa bànneexi bakkan toppoo li yàlla bëgg yàlla dina la toroxal àdduna toroxal la àllaaxira di nga texee di àdduna texee di àllaaxira parce que bànneexi bakkan dafay alak nit sunu borom subhanahu wa taala wax na ci suuratu نازعات من واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى képp koo xam ne ci jaami yàlla yi dangaa ragal ëllëg taxaw ci kanamu yàlla ba loolu teral la jural la nga tere sa bànneex say bakkan nga tere ko say bànneexi bakkan nga tere ko sa bopp borom bi nee na kooku ragal taxaw sama kanam ba mu bàyyi bànneexi ba kanam mu topp man yàlla li mu bëgg yàlla nee na kooku aljanna laa ko jëmee kon ndeke jaamu yàlla bi waroo cee seet yow li nga bëgg danga war a xool li yàlla bëgg suñ doon joxe misaal lu gàtt la tey vendredi la julli juma kenn du tardé juma ñëpp dañuy ñëw jàkk julli si waaye bari na ku ñëw julli si juma tisbaar demoo fajar jàkk foo nekkoon ma doon nelaw lan moo la empêché dama war a teel a xëyam moo tax borom xam-xam bi ne pertaange mu ngi yem ci nga yeewu fajar ndax sa wërsëg yeewu woon ndax ki lay wërsëgal nga yeewu fajar ndax sa wërsëg yeewu woon ndax ki lay wërsëgal foofu la pertaange toog topp tàmbalee mbokk yi ndeke bànneexi bakkan yi foog ñu lem ko takk ko ba mu dëgër sànni ko fale topp li yàlla bëgg yonente alayhi salatu wasalaam nee na laa yumin ahadakum hatta yakunu hawaahu tabaan lima jitu bihi rawaahu at-tirmisiyu sayduna muhammad alayhi salatu wasalaam nee na kenn ci yéen ngëm yàllaam du mën a mat lu dul day lem bànneexi bakkanam teg fee topp man muhammad li ma indi nan xool nag sunu bopp ku mu mën a doon ci ñun góor jigéen mag ndaw xoolal sa bopp li yonent bi indi foo ci toll ndax yonent bi li mu indi nangu nga kaa topp wala ay bànneexi bakkan nga nangoo topp asbaabul xislaanillahi lil abd bi ci njëkk mooy ittibaaul hawa sabab yi tax yàlla di toroxal jaam àddina ak alaxira bi ci njëkk mooy jaam bi toppi bànneexi bakkanam kon bakkan day alak nit toppi bànneexi bakkan day alak nit al imaamul busayri nee na an nafs ka tifl nee na bakkan mi ngi mel ne xale buy nàmp xale buy nàmp feet feral luñ ko tere ko bàyyi ween bi du bàyyi kon foog ñu feral sunu bakkan yi foog ñuy xool li yàlla bëgg li yàlla bëgg bu teewee li nga bëgg teew nga xool nga sànni li nga bëgg def li yàlla bëgg loolu mooy tax yàlla xam ne yow li mu indi bëgg nga kaa topp waaye ñun ñun xool suñu bopp rek li yàlla bëgg day taxaw li sa bànneex bakkan taxaw nga sànni fale li yàlla bëgg topp bakkan bi waaw naan bu ma paree dinaa tuub quoi garaawul non got naan di tëla quoi xam na nu mu demee dinañu jéggal quoi wéy ñun ñëpp noonu lañu mel genn wàll gi ci ñun noonu lañ mel yal nañu yàlla dimbali saniyan arriya wa mahabbatul madhi ñaareel tomb ci sabab yoo xam ne bu ci jaam duggee yàlla toroxal ko àddina ak alaxira mooy arriya ngistalu wa mahabbatul madhi ak bëgg ku la tagg li ngay def da ngaa bëgg nu gis la wala da ngaa bëgg nu dégg la deuxièmement bi da ngaa bëgg boo ko defee ba pare ñu tagg la su fekkente ne kenn gisu la kenn déggu la kenn waxu la jërëjëf suba doo ko def ñu ëpp ci ñun noonu lañ mel bëgg ku leen dégg xam ngeen bokkaale ñaar la assirku nawaani kama qaala al ulama loolu la borom xam-xam yi wax bokkaale ñaar la assirku l akbar wa sirku l asgar bokkaale bu mag ak bu ndaw bu mag boobu leer na innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna ku bokkaale yàlla nee na safara nga jëm boobu mooy takk gàllaaj yeeg sulli néew yi ci armeel yeeg dagg seen yax ak jël seen cër ci ñoom ak sangoo deret ak takki béjjën ak sangu ci guy yeeg yooyu ñu kooku mooy bokkaale yàlla bu mag bi bokkaale bu ndaw nag mooy arriya mooy ngis talu di def dara pour ñu gis la chaque jour mooy yow rek da ngaa bëgg ku la gis na la gaa yi gis nan la dégg yaay diw yaay ponkal mi yaay nangam yaay ngand mi soo ko defee ba pare na gaa yi taxaw takk rajo yi tagg la suñ la taggul dootoo joxe waaw gars yi barki démb joxe naa ci jumaa ji 5000 mais kenn waxu ko dootuma joxe woy yow maa fa ëpp lu ma joxe kenn waxul sama tur waaw musiba ñëw na perte nga yàlla dootu la fay moo tax riya yonent bi ne maa ngi leen di moytandikuloo bokkaale yàlla bu ndaw saaba yi ne ko wa ma sirkul asgar ya rasulallah qaala arriya muy ngistalu di def dara pour ñu gis la waaw benn waay fanaane na naafi la ngistal pour nit ñi mucc ci lu jafe la waa ji dafa fanaane naafi la ba bër set mu dem fi muy liggéeyee toog ci sees bi gëmmentu di fuddatu o o o gars yi ne ko waa seex bi lan la mu ne dama fanaane naafi la waay gars yi ne allahu akbar mu ne te lu ngeen ci xamul nag damaa woor mooy li nga doon defee dem na ñii ngistalu yowmal xiyaam xam nga lu leen di yàlla di wax اذهبوا إلى الذين كنتم تراعونهم أعمالكم هل تجدون عندهم جزاء ana ñu doon gistalu ñu ne yàlla ñu ngi nii mu ne dem leen ci ñi ngeen doon won seen jëf ngeen seet ndax ñooñu am nañu fay bu ñu fay kenn du leen fay dem leen du da ngeen deen wone seen jëf da ngeen a bëggoon nit ñi ñu ne yéen jàmbaar ngeen gis ngeen moo tax yonent bi dañuy nettali ñetti li ñuy jiitu safara ëllëg kenn ki jihaadkat la woon kenn ki da doon jàng alquran kenn ki ku baax la woon ku amoon xaalis ku tabe jàmbaar bi bi mu taxawee ci kanamu yàlla yàlla mu ne malaaka yi jël leen ki yóbbu safara malaaka yi dañoo tiit ne yàlla kii kii day fasam la takkoon di jihaad rek dëkk yu bëree bëri yóbbu na fa lislaam rey na nangami yéeféer yàlla mu ne est-ce que xam ngeen lu taxoon muy def loolu gaa yi ne ah xanaa bëgg diine yàlla mën a déedéet dafa bëggoon ñu ne jàmbaar la nit ñi wax nañ ko jeex na wax nañ ko jeex na dafa bëggoon ñu ne jàmbaar la wax nañ ko jeex na ñu ne jàngkat alxuraan bi kaay acca bismillah topp ci ñu ne kii borom baat bu neex bi kii yàlla mu ne waaw daa bëggoon ñu ne baat bi daa neex waaye du woon pour man de acca bismillah ñu ne ku tabe ki kaay topp ci ñëpp tiit kii alalam moom mi ñee ko bokkoon yàlla mu ne deful woon ngir man dafa bëggoon nit ñi ñu ne ak a baax moo tax man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbi ahad képp ku mu ku mu leer ne bëccëg a ngi ñëw dina la wàcce salal dugal la ci morgue bi futti la sang la ba nga set sang la dugal la ci yóbbu la ci armeel yi wàq ba mu xoo dugal la nga dajeeg yàlla yàlla mu ne na nga jëf jëf joo xamante ne bokkaale nekk ci ngistal bokk ci bokkaale nekk ci ngistal nekk ci gis nga li tax nit ñi dëgër bopp li tax nit ñi lànk ne duñu changé mooy saa yoo waxee nit ñi yàlla rek léegi am koo xam ne ndeysaan borom pas-pas bu yàqu bu nekk ci biir nit ñi te garaawul ñun am nañ ay kilifa yoo xam ne jàmm rek mun demee yowmal xiyaam moom ñooñu rek le nañ loolu xamuñu ne yowmal xiyaam kenn mënu fa tus loolu saa yoo ko waxee rek am ñu yëg dara ci seen xol yi loolay li am nag mooy dëgg gi yowmal xiyaam kenn mënu fa dara hatta sayyidina muhammad mënu fa dërëm muhammad nag bu mënul bu yeboo ñoo xam ne keneen mënul yowmal xiyaam moom yàlla moo ko wax yowma izin bis penc mu ne laa taxfa minkum xaafiya dara du nëbb kenn du wax illa man azina lahu rrahman loolu ko yàlla ne eekaay mu taxaw yàlla mën na ko waxal te suy wax wa qaala sawaban wax ju ne cocc lay wax wax ju mel ni midi kon nan jaamu yàlla nanu xiirtal suñu bopp ci jaamu yàlla ñu bañ a tricher ñu bañ a nax suñu bopp xam nga nax sa bopp mooy lan mooy yow doo dem fajar jàkk doo dem tisbaar doo julli ji jàkk takkusaan doo dem jàkk timis doo dem jàkk gee doo dem jàkk vendredi rek nga ñëw jàkk loolu mooy nax sa bopp nax sa bopp mooy li yàlla wax ak yonentam nga lànk ne doo ko def ba pare yaakaar aljanna borom xam-xam bi nee na gaal du daw ci suuf inna safinata la tajri alal yabas arriya mooy ñaareel bi ngistal wa mahabbatul madhi ak bëgg ku la tagg xoolal dëkk bi kii saraxe sax nga xam ne koñ bi moo leen tane day saraxe ay mburoog day joxe ceeb day joxe su jaaree ñaari yoon rek am ku ne jaajëf gis naa li ma yóbbante woon kii kii xaaral rek bàyyi leen maa ngi moom kii dama koy jox bay dootu ko joxati xanaa du yàllaa tax abubakar abubakrin siddiq radiallahu anhu wa ardaahu histoire bu doy waar dafa dal ci kawam histoire bi mooy lan Aïcha lañ tuumaal njaaloo kan mooy Aïcha mooy soxna yonent bi kan mooy baayam Aboubacar Siddiq kan moo ko tuumaal njaaloo ku dëkk kar Aboubacar Aboubacar loose ko di ko jox lekk di ko jox naan moog njabootam ak soxnaam ak ñépp gis ngeen ni mu jege bi histoire bi feeñee ba ñu xam ne waa ji moo wax wax ji moo tax yaay Aïcha fay jóge këram kër yonent bi dem kër papaam allahu akbar xoolal ku bëgg a tas kër yonent bi bëgg a tas sëyu yonent bi waa jooju li mu def garaaw na de Aboubacar bi mu ñëwee ba xam affaire bi waaw problème bi fu mu jógee ñu ne mastax mii la de moo ko wax waa ji moo ko wax kii la di ko yow yow yow la mu ne waaw man mii la de ak yow ni ñu mel yow kii de dootuma ko joxati mu lekk dootuma ko jox mu naan yàlla mu ne xanaa taxuma woon bu dee maa tax dépasse bi day yokk waaye du wàññeeku Aboubacar giñ ci yàlla ne yàlla yaa taxoon yokk dinaa ko yokk parce que yàlla moo taxoon kuy def da ngay def ngir yàlla waaye ngir nit ñi ne la nit ñi xool ne la nit ñi dégg ne la nit ñi gis nangam ak nangam amul njëriñ da ngay perte yowmal qiyaamat parce que nit ñee taxoon ngay def mbokk yi ñetteel bi mooy asbaabul xislaani allahi al abd li tax yàlla di gàcceel jaam ëllëg ñetteel bi mooy atakabbur wal xuruur mooy ngand ngandalu ak waru waaw ngand ngandalu li wane yow sa daraja sa martaba ni nga mel li nga am ni nga toll amul benn njëriñ looy ngand ngandalu looy génne dënn looy wane sa martaba sa daraja lan la lan nga ëpp nit ñi dara annaasu sawaasiya ka asnaanil must ñépp a yem ndeysaan benn waaye daa dugg ci armeel yi ñu gas pax yi ñaari yax yu fënax génn mu ne waaw ñaari yax yi kan moo ci yaxu gor ak jaam wan leen ma ko waay ñu ne ko am mënuñu ko xàmmee lu tax ne suuf see ko lekk mu ne wala leen ma ci kon patron ak ku ñàkk ku am ak faqiir ana yaxu ki doon reere ginaar ana yaxu ki doon reere sombi ndax mënuñu ko xàmmee lu tax ne suuf see ko lekk yépp a yem ci kanamu yàlla laa fadlun li arabi ala ajam illa bi taqwa ku weex ku xees ku ñuul ku am ku xam gënewoo ñeneen ñi lenn ci kanamu yàlla tabaraka wa taala lu dul nga gën leen ragal yàlla inna akramakum inda allahi atqaakum foofu mooy nattuwaay bi ki la gën a ragal yàlla moo la gën keroog ba bilaal ñuulee nekk jaam jóge Éthiopie la gën abu jahlin mi xees pecc nekk arab bokk ak yonent bi deret keroog la ko bilaal gën keroog ba bilaal yéegee ci kaw kaaba gi nodd yéeféer yi xool ko kenn ci ñoom ne alhamdulillah ba sama baay fekkewul baaxoñ bu ñuul bii ci kaw kaaba gi di yuux aaya bi daal di wàcc yaa ayuha nnaas inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum yéen nit ñi man yàlla maa leen bind jële leen ci ay góor ak jigéen def leen ngeen ay peuple ngeen ay maas ay génération ki gën a baax ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla ndeke nattukaay bi du kii moo ñu ëpp alal moo nu gën déedéet ba tax moom muy ngand ngandalu abadan ba tax muy rëy rëylu yonent bi nee na rëy sama mbalaan la mbalaanu yàlla la ku ko xëccoog yàlla yàlla dina la wàcc xoola waa ji lu mu rëy rëy rëy rëy fi muy fanaan lu mu kawe kawe kawe kawe bis dina ñëw yàlla wàcce ko te ko su ko yàlla wàccee kenn dootu ko yëgalaat kon rëy amul njëriñ yàlla daf ko tere jalla jalaaluhu wa azakamaalu ak waru waru war sa bopp fala taxurannakum alxayaata dunia yàlla nee na bu leen àdduna wor ixwat aliman aqulu ma tasmaun wa astaghfiru allah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim salatu wassalam الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله بقي أسباب خزلان الله للعبد tomb bi ci njëkk mooy ittibaul hawa topp bànneex ñaareel bi mooy arriya wal wa mahabbati al madh ngistalu ak bëgg ku la tagg ñetteel bi mooy atakabbur wal xuruur rëy rëylu ak waru ñeenteel mooy ataalluq bi gayrillah aj sa xol ci kudul yàlla tomb boobu nag la wax mooy feebaru réew mi aj seeni xol ci lu dul yàlla wala kudul yàlla aj xol yi ci ñi dul yàlla foofu la feebar bi réy nag foofu la nit ñi amee problème seen xol yépp leneen wala ñeneen ñu dul yàlla ñoo ci nekk waaw akbar ku tiit ñooñu ngay woo ku ragal ci ñooñu ngay làqatu kuy ñaan ñoonu ngay ñaan ku wax ba wax ji jeex ci ñooñu nga koy tëje ku koy tàmbali foofu nga koy tàmbalee booy dox sax da ngay wane ne man kooku laa bokk nangam nangam ataalluqu bi xayrillah aj ci kudul yàlla mbokk yi ay ab jullit yàlla daf ko war a jege borom bi nee na wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai ida daan su la jaam ñi laajee man yàlla fan laa nekk wax leen damaa jege ku ma woo ma wuyu la ku ma woo ma wuyu la sart bi mooy boo woowee yàlla boo woowee yàlla yàlla rek amul keneen jullit keroog sahaaba yi bañ leen ne tey ngeen dee yéeféer yaa ngi ñëw lan lañ wax hasbuna allahu wa ni'mal wakil yàlla doy nanu jullit yàlla da ko war a jege ci xolam ci gis-gisam ci xelam lépp looy jël na fekk yàlla ba pare waaye leneen rek yàlla yàlla leneen même bu ñuy waat même bu ñuy waat fii da ngay dégg benn waaye ne man ku ma waatal ci diw terminé gëm naa ko te waat jaamu yàlla la ñooñu ñu naan al abadala ñeent lañ moo tax ñu def baat bi jamu suñ nee benn bi mooy abdu abdu abdullahi jaamu yàlla kenn la suñ nee abada la ñu bari lañ ñeent lañ abdullah ibnu abbas abdullah ibnu mas'ud abdullah ibnu omar abdullah ibnu amr ibnu as ñeent lañ ñoo fi raw nee nañu nga waat ci yàlla nga fen moo gën nga waat ci keneen wax dëgg nga waat ci yàlla nga fen moo gën nga waat ci yàlla nga waat ci keneen nga wax dëgg ñu ne leen lu tax ngeen wax li ngeen wax ñu ne fen yàlla daf koy baale te yàlla du bale bokkaale te waat ci kudul yàlla bokkaale la waat ci kudul yàlla bokkaale la ah dañ xool suñu bopp foofu lu ko waral mooy xol yi lañu aj ci ñeneen ñu dul yàlla mbokk yi yàlla rek te pourtant gaa yi aj seen xol ci lu dul yàlla bisa ngi ñëw dañuy xam ne yàlla la bisa ngi ñëw nga ni las ñu teg la ci buntu jàkka yi ñëpp ñëw duñ ne ana diw kaay leen ngeen yëkkati ko ñëw leen ngeen déedéet ndeysaan lu ñuy wax dootuñu wax sa tur dañ naan jaamu yàlla bi ngeen gis mu tëdd jaamu yàlla bi kon yàlla la kon mbir mi yàlla rek ci yàlla lan bàyyee ko woon ci yàlla la ñuy dellu moo tax ku faatu ngeen dégg ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci yàlla lan bàyyee ko woon ci yàlla la ñuy dellu ataalluqu bi gayrillah jullit day aj xolam ci yàlla booy ñaan ñaanal yàlla booy laqatu laqatul yàlla sooy wóolu wóolul yàlla sooy wéeru wéerul ci yàlla loolu mooy diine juróomeel mooy kasratul maasi asbaabu xizlaanillahi lil abd bokk na ci kasratul maasi bakkaar yu bari bakkaar yu bari bakkaar day rey société day rey suuf bakkaar day rey suuf day tax ndox dootul wàcc bakkaar day arrêté wërsëg bakkaar day dindi barke bakkaar day tas famille di nga gis kër goo xam ne ay bakkaar moo tas kër ga nga gis réew moo xam ne mbokk yi xawmu luut nitu luut yi lan moo doxoon yàlla alag leen te li garaaw mooy yàlla ba mu leen alagee ba fii ma taxaw di wax ak yéen suuf soosu nga xam ne ñoom dong ñoo doon def seeni mbon yàlla yabal malaayika na leen alak dañoo kuppati carte bi carte bi ñu nekkoon carte bi fa ñu nekkoon réew ma dañ koo kuppati yàlla yëkkati suuf sa yóbbu ba kaw asamaan wëlbati ko ba fii may wax ak yéen la féete woon kaw saxatul garab ndax bàkkaar yu bari mooy ngóor jigéen lañ doon def fii nag lépp lañ def ñun ñee ngay njaaloo ñee ngay naan sàngara ñee ay góor jigéen lañ ñee ay giin lañ ñee ay musicien lañ ñee nga def yaramu neen ñee lépp lu xeet yi doon def ëllëg yàlla di leen alag ñun lépp lañ boole teg ma ne dëkk yu njëkk ya benn bàkkaar lañ doon def rek yàlla alag leen benn ñun nag bàkkaar yooyu ñooñ doon def lépp lañ dajale teg xool leen temps yi góor jigéen ni mu bëree ci dëkk bi doo toog benn semaine lu li nga dégg koñu sàngam ay góor jigéen a nga fa loolu mooy lan fuñ jëm fuñ jëm ak ni mu ñaawee ak ni mu bonee loolu mooy système bi yàlla bind àdduna bi na ko doxee ñu ne dañuy changer système bi góor ak jigéen la yàlla bind nañ sëy ñu ne non góor ak góor mën nañoo sëy jigéen ak jigéen mën nañoo sëy mooy li yàlla wax bu mu am wallahi bu gaa yi amoon pexe yàlla danaan jant bi bëccëg lay génn ñoom ñu ne ko non non ñoom dinañ ko bloqué génne ko guddi waaye foofu mooy mbir mi nag foofu la terminus bi nekk. yàlla bi mu bindee àddina bi dafa am lu mu def mu tuddee ko sunan ay règle noonu lay dem asamaan ci kaw lay nekk suuf mooy nekk suuf góor góor lay nekk jigéen jigéen lay nekk ñun ñu bëgg a changer système mu dund googu. di ko teg ci lu ñu neex suñu bànneexi bakkan di ko teg ci ay bakkaar di ko teg di ko teg te yàlla li mu bëgg rek mooy am dañuy sonn rek yonent bi nee na ci hadisul kursi yaa abd anta turid wa ana urid fa in aataytani ma urid aataytuka ma turid fa in naazatani fi ma urid atbaatuka wala yakunu baada zalik illa ma urid yàlla nee na yéen samay jaam man yàlla may seen boroom dama leen a sant def leen soxla ci yéen dara yéen ngeen nekk samay jaam soxla ci man dara su ngeen ma defalee li ma bëgg ma defal leen li ngeen bëgg su ngeen xëccoo ak man li ma bëgg ma sonal leen ba ngeen sonn te àdduna bi du yàgg loolu man yàlla li ma bëgg mooy am mu ne koo fi dégg mu naan nangam du fi am déglul fukki fan léegi nga dégg jóge na fi wala dee na affaire bi continue ana ñu ne woon yonent bi du fi noddu ana ñu ne woon kenn du fi tabax jàkk ana ñu ne woon kenn du julli ndax nit ñi julli lañ wala julli wuñ ndax nit ñi ay jullit lañ wala ana ñu ne woon dañ fiy jële alquran ba léegi mu ngi fi noonu loolu mooy sunanullah fil ard kon juróomi mbokk mbokk yi juróomi ponk yi day alak jaam àdduna di ko alak àllaaxira yàlla na yàlla def ci ñun ñu moytandiku yàlla na yàlla def ci ñun dégg ak topp allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna alattibaai wa arina albatila batilan warzuqna alattinabi allahuma ya muthabitu alqulub thabbit qulubana ala taatik allahuma ijcalna min xizbika fa inna xizbaka hum almuflixin wajcalna min jundik fa inna jundaka hum algalibun wajcalna min awliyaik fa inna awliyaaka la xawfun alayhim wala hum yaxzanun عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله